بسم الإله فن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإله فن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar naa Ahmadul Xadim ñoo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu boroom gën a yàggal te gën a ak wéram waaye di ñaanal boroom ëtt bi ñu nekk di Serigne Omar Bousso xalifa Serigne Mbacke Bousso yàlla na ko fi sunu boroom gën a yàggal lool te gën a doole ak wéram. kàttanal ko ba mbooleem yéene jum am ci liggéeyal sëriñ Mbàkke Bousso suñu borom bàyyi ko fi ba mu matale ko te ànd ko ak mbooleem njaboot gi yëpp. mbokk yi noo ngi toog ci jataay boo xam ne jataayub fàttaliku la waaye jataayub nafaraat la di jataay boo xam ne fas nañ ci yéene waxtaane xam-xam bu am njariñ te mbooleem xam-xam yi nag bu am njariñ moo tax ñuy wax xam-xam bu am njariñ nag saa yuñ ko waxee ci mi réew xel yëpp danañ dem ci sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ moom sëriñ bu soobee ak eh, soxna Faati Balla mu mag ma mu doon koo xamante ni bii mënees na koo jàppe xaajub sëriñ bi bu doon sëriñ bi doon jëmm mën naa nekk ab xaajam soo leen boolee ñuy jénn jëmm ndax mën naa tudd takk ndeerub sëriñ bi ndax la jëkk ci moom bala mujj ci moom lépp sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la sëriñ bi daanaka wax na ko Mbàkke bul wax ci man ndax li nga xam ci man kenn xamu ko mu taxaw moom ci ak ndawam ba ni mu ko noppee gis lépp lu ko sëriñ Touba mas di liggéey loo it mu jëm ci wàllu xam-xam xam-xam boobee nag lañ fas yéene waxtaane tey jii seq ko ak eh, sëriñ fàll bu Boussa Assane mu toog dend ak ñun waaye feggoo ci itam ak sëriñ bu Bousso te loolu li koy firndeel mooy téere bii nga xamante ne bii incha allahu rabbi sëriñ Serif dana ci ñëw buñ tuddee xam-xam nag mbooleem xam-xam diine luy jariñ doomu aadama ci àdduna ak lu koy jariñ ci alaaxira mooy xam-xam bu am njariñ te xam-xam yooyu yëpp nag sëriñ bu Bousso peegoon na ko ba mbooleem ñi raw ci ci réew mi daanañ seet si sëriñ bu so te daanañ gàggandikoo ci moom ba yàlla xiirtal ko sax. li ñuy wax xilmu nujum muy xam-xam boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu biddiw yi ak jant bi ak weer wi ak la ca aju sëriñ bu Buso peegoon na ko ba def ci loo xamante ni bii àdduna bépp daanañ ko daañ ko seet si kon damay bàyyi ak euh, sëriñ Falilu Buso Asan mu nuyoo ak bokk ñi rek soobul ñu nag ci xam-xam boobu mu di xam-xamub sëriñ Mbàkke Buso ci fànn yëpp nag. su daaneelee kàddoom dana ñëw ak sëriñ sërif ci nag lii màndargaal xam-xam boobu nag ci téere bi nga xam ne dajale nañ ko tam jëm ci chéré Seyxuna Ahmadul Xadim kon ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Fallou Boussa Assane bisimilah. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu jaarale ci suñu nuyoo mu àgg ci mboolem ñi nga xam ñoo ñuy topp ak ñi ñuy déglu nuyoo bi ak ziar bi ci alxalifatul am lil ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi waaye mottali ay naalam waaye itam di nuyu ak ziar bu baax sëriñ Omar Bousso mi nga xam moo ci bopp njaboot suñu Mbàkke busu di ko ñaanal moom itam suñu borom yàggal ko fi te mottali ko ay naalam ak mboolem njabootu suñu Mbàkke Bousso gi nga xam ñoo ne ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi. wax nag suñu Mbàkke Bousso doon jëmm joo xam ne nii waris na koo mën a la ci fànn yu bëree bëri xam nga nit daañ ko xamle ci wu askan nit daañ ko xam la ci jëfam waaye nit daañ ko xamle ci ay jikkoom nit daañ ko xam la ci gannaawam mooy yi nga xam ñoom la defar lu ci nekk nag boo jëlee sëñ Mbàkke da cee am cër boo xam ne ni boo ko waxee rek mu doy sëkk ni nga ko waxee léegi ni mu bokkee ak Sénégal gépp muy muy Fuuta ak Jolof ak Saalum ñoo ko séq muy Afe ak mm, ak euh, Afe ak Mbàkke ak Mbusoobe ñetti famille yoo xam daanaka ñi xam Sénégal ñëpp ñu ñu baax famille yooyu ñoo leen meññ sëñ Mbàkke bu su ci biir famille bu la juddoo kon bu dellu woon ci juddoom rek dafay daal doy sëkk mu nekk jëmm joo xam ne ni ku ñu war di waxtaan la ndax ni nga ko xamee waajurum wu jigéen ni ko waxee léegi mooy soxna Faati Balla al Kubra doonoon doom ci maam Balla maam Balla doom ci maam Maharam moom kon day nekk doom yu bàjjan ci sëñ bi muy moo tax sëñ bi daa ko woowee yam na amatiim waaye itam waajurum wu góor di sëriñ bu soobe xam ngeen moo soxna maam jaara ñoo bokk lépp muy waajur wu góor ak wu jigéen foofu tam kon day doon doomi nijaay ci sëriñ bi moo tax sëñ bi daa ko woowee itam yam na xaalit mooy sama doomi nijaay kon foofu bu fi bokkee rek dafay doy sëkk ab cër ci ñu war a xam kan mooy Sëñ Mbàkke waaye nag rax ci dool yi moom ci boppam daana wax ne ñoom seen sërif te mooy seen tedd nga xam ne ngi jóge Yonent bi alayhi salaam moo amu ci li muy sikk sàkk ndax dañ ko ko woon gi ni mu bàggal ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam te na ko waxee nee na mbokk ma jóge woon penku ñëw fuuta ci wàllum njaay yaxantu jënd jaay moo jaxasoo woon nag giir gi ñuy wax tukulóor ba am fa soxna bàyyi fa ak njaboot njaboot gi muy alal yi ma fa bàyyi woon nag dakoo koo daal di woon gannaam dellu moom fa mu jóge woon ñàkk guñ ko ñàkk xamaat moom dara nag moo tax mbusoo bee njël jël seen sant ndijaay muy buso ji sëñ Mbàkke neen seen sant ndijaay lañ jël ndax ki leen meññoon moom ba mu delloo xamaatu ci moom dara kon foofa lañ cosaanoo baag si fii ak si tey moo tax sëñ Mbàkke moom sërif gi carif gi maanaam carif googu moom daawu ci am lu muy sikk sax kon ci wàllu askan foofu la bokk waaye itam nañu jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna yëpp bi mu juddoo te mooy teg ko ci yoon teel ko teg ci yoon loolu tam jàngal ko liñ ko war a jàngal mu xam ko tàmbaleem njàngam ci sëriñ bu soobe mi waay juróom mu jàngal ko xaan ba mu sori mu tabbi ci loxo yi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moo tax bu ñuy wax diggante sëñ Mbàkke ak sëñ Tuubaa dañuy wax ne sëñ Mbàkke ba muy ànd ak sëñ Tuubaa boobu sëñ bi wooteegul yoonu murit jiit na yoonu murit lu yàgg-yàgg mu ànd ak moom ndax booba mbokk yi ña ngi ca Saalum wax nañu ca la sëñ bi ñëw Saalum doon seet si nijaayam sëriñ bu soobe mu yabal ko ci ku ñu wax sëñ Maxtaar si ngir bu demee mu am lu ko wax nee na bokk na ci la ko wax nag bam mu mooy ne ko abis dana ñëw day sa mbir dana jolli waaye boobaa na fonk fonk Serigne Mbacke Bousso ak maam Thierno foofu la seen relation tàmbalee wax nañu bi mu ñëwee daal di tàggu sëñ bi soo bi dem bi sëñ Mbacke ñëwee laajte ñu ne ko sëñ bi dem na mu daal di jël àlluwaam daw topp ci wax nañu dem daw topp ci gannaaw sëñ fekk mu toog ci ron ak benceni muy tàng lool nee na keroog sëñ bi xel na fa ak lem ñu bokk ko jëfandikoo ñoom ñaar nee na sax sëñ bi daana ko fàttali ne ko ndax Mbacke yaa ngi fàttali ko suñ lem googee foofa la ko sëñ bi ànd ak sëñ bi boobu mi ngi toll ci sóoratu taaxa kon sóoreegu ci alxuraan boobu sëñ bi moo ko mottali alxuraan jàngal ko li ñu njëkk jàng ci xam-xam lépp door koo yebal ci ku ñuy wax sëriñ Samba Tukulóor ka doonoon mbokkam moo ko jege lool mu mottali fa yenn fànn yi guddi yi waaye itam gannaaw mu yebalaat ko Ngiig Fall ci université bu mag boobu nga xam ñëpp xam nañ ko mu fa doon yokk xam-xamam ba tey wax nañu ci 1883 bi sëñ bi def déclaration bu siiw ba ca Mbàkke Kajoor booba sëñ Mbàkke mi ngi Ngiig Fall ba mu ko déggee la daal di ñëw yeesalaat ak jaayanteem moo tax ñeent fukki yi njëkk a topp sëñ bi ci njëkk a jaayante bi ci yoonu murit sëñ Mbàkke ci biir lay dugg bu du juróomeel ba du ko sori kon noonu la ànd ak sëñ bi nag mësta taxali ko moom benn jamono benn saa waaye nag sëñ bi féetale woon ko ci fànn gu am solo te mooy fànn gi nga wax léegi mooy fànnu jàng ak jàngale buñ delloo ci sëriñ Mouhamadou Bousso moo njëkk a nekk ab xalifaam doon ab taawam moom bind na biographie sëñ Mbàkke ci atum 1946 ba fi sëñ Mbàkke bàyyi ko la bind téere tarjamaal ko tarjama mooy biographie maanaam bind ay jaar-jaaram dafa wax ne wallaahu say alqada wal ifta wa radd ala al barawat assaadira min al wal amsaar yu mel noonu la ak wa kaana aba xasan fi lmuxdalaat wa tuwafiya seex abu hanu raadin mu ne sëñ bi lim ko féetale woon mooy atte maanaam atte ci lislaam lépp loo xam ne nii lu ñu war a leeral la ci diine ji moom sëñ Mbàkke sëñ bi la ko féetale woon moo ko daan leeral daa ko tegoon ko tam muy lox supervision ci jëm ci wàllu jàkka yi natt yaag jubale xibla jaag imaama gaag la ci waxtu lépp sëñ Modou nee na sëñ Mbàkke ci loxo sëñ Mbàkke la ko sëñ bi tegoon waaye tam nee na ci loxoom la tegoon mu koy tontul ay lettre lettre yi ko daan ñëwul daan jege ci réew yu bari daan jógee ci borom xam-xam yu baree bari bu masaan ñëw sëñ mbàkkee la koy jox sëñ Mbàkke jàng ko ba noppi bu noppee sëñ bi lay tontu sëñ bi sëñ Mbàkke la koy wax mu tontu ko loolu am nañ ci firnde yu bëree bari lettre yoo xam ne dox na diggante sëñ bi ak Cheikh Sidiya Baba sëñ Mbàkke bind ko ak yeneen lettre yoo xam ne dox na diggante sëñ bi ak yeneen borom xam yoo ni ñoom la seqaloon noonu tam la ko dénke woon lépp luy wàllu fatwa te mooy képp looy laaj ci mbirum diine eh, sëñ Mbàkke boo ñëwee yow sëñ Mbàkke moom moom la la sëñ bi booleel mu tontu la mu ne nag moo nekkoon Abu Hasan fil Mu'dalaat maanaam jafe-jafe masaan am rek sëñ Mbàkke mooy taxaw mm-hmm. lépp luy jafe-jafe daal bu masaan am sëñ Mbàkke mooy taxaw loolu am nañ ci ay firnde yu bëree bari mu ne nag sëñ bi bi mu fiy bàyyi ko sëñ am na ngërëmul sëñ bi te loolu dañ koy mën a firndeel ci fànn yu bëree bëri ndax boo demee ci mañ moom bi nga xam si Abdoulaye moo ko moo dajale ko boo demee am na fa boo xam sëñ ba mu koy bind ba mu agsi sëñ Mbàkke ne al adib wala muridu sadiq noonu la ko noonu la ko dàkkantale mooy boroom xam-xamu euh, làkk waaye itam al muridu sadiq baat muridu sadiq moom ñi ko sëñ bi seeral nag def naa ne bëriwul lool lool lool sëñ Mbàkke am na seer su doon kooku mooy sëñ Mbàkke Euh, féete woon sëñ bi ci fànn googu xam-xam boobu ko sëñ bi féetale woon nag te defal kon ci woo defalul woon ko ci fatxu te mooy ubbiku nga xam ne lépp lu mu gis xam ko day yomb ci moom lool daana wax ne isaa rafaxatu xirte seen limi daa limi daan yu mel noonu mu ne xabaali kulli laf seen kullahu nee na soo ma sa yëkkatee sama xalima jëmale ci awkee di bind nee na baat yi dañ njëkkante nekk naan ma bind ma bind ma bind ma loolu mooy mooy mooy fattu gi nga xam ne ni moom la ko sëñ bi defaloon ci wàllu xam-xam sëñ Modou si bind na ci biographie boobu ne sëñ Mbàkke daana wax ñaar fukki fànn ci xeetu xam-xam benn bokk ci ak morom kon loolu ba tey dafay rek la ñuy wax kon xam boobu sëñ Modou li mu ci bind ne daana wax ñaar fukki fànn ci xeetu xam-xam te loolu tam day loo xam lu ci nekk lu ñu mën a vérifier la ndax fànn goo ci dem am na lu mu bind bàyyi ci bind na ci tawxiid nga xam ne mooy xam-xam bi njëkk ci lislaam ni ñuy wéetal sunu borom bind na ci amaanul balit tudd ko amaanul balit min xatri taqalit maanaam téere la boo xam ne nii ci wàllu tawxid rek ci la sëñ Mbàkke di wax xawat na nag tawxidul ashari moom la ko gën a dëppal xam-xamu fiq bind na ci lu bëree bari moom bind ci miraas bind ci leneen ak leneen li ñuy wax ulumul quran xam-xam ni ñuy jàngale alquran dañ koy bind ak yu mel noonu bind na ci moom it bind yaa ngi fi ñu man koo gis bind ci wàllum luxa làkk mantiq tam li ñuy wax saraateer bi ñuy wax sulamul munawraq boobu tam mu def ci sara boo xam ne moom tam ba tey mi ngi fi waaye tam bind na ci fànn yoo xam ni sax ñi jamononte woon moom bàyyiwuñ koon xel lool lool muy wàllum mathématique suñ Mbàkke daf cee bind fi maanaam table li ñuy table multiplication yi nga gis ni daf koo way ci ay bayit babdun bajwun bahwun maanaam di la wax ne deux fois deux quatre mooy babdun mu ne bajwun maanaam deux fois trois six noonu la koy toppee ba table multiplication yi mat loolu tam mu way ko nga xam ne boo ko mokkalee rek loo bëggee multiplier day yomb ci yow loolu du jax sax ngay jàng ci yeneen yi loolu daf cee bind li ñuy wax système métrique booboo yomb ni mu yombe daf ciy bind lan mooy mètre lan mooy ay sous multiple am lan mooy ay multiple am lan mooy kilomètre lan mooy mille ak yooyu yëpp lu ci nekk mu wax la mooy nangam nattukaay bi boo ko jëlee ci suñu nattukaay yi ñu xam nangam la noonu la jëlee ci wàllum kilogramme maanaam li ñuy peser wala ñu mel noonu leeral ci fànn yu baree bari yoo xam ba tey loolu itam ba tey mbind maa ngi fi loolu nekkoon fànn yoo xam ne nii yu raar la woon jamono yooyu nga gis ku bind ci noonu la ko defee bind itam ci tasawuf bind ci ay tont ci ay tont yu xóot yoo xam ne nii moom itam luñ mën a dellu la mën caa seere am na ko ko mas a laaj ne ko nit bu fi sëriñam bàyyi ko naka la war a def ndax daa war a dem jéblu jowaat muy laaj boo xam ne ni bu xaw a compliqué la léegi waaye suñu mbàkke tontu woon ko ci lu leer nañ ne ko nit bu waajuram maanaam bu ab sëriñam wàccee liggéey dan koy jàppee comme xale bu yaayam wàcc liggéey nee na su fekkente ne tout tànk la boo xam ne nii nàmp dong man mënta lekk leneen ne il faut ñu yóbbu ko wutal kenn ku ko nàmpal waaye nag su fekkente ne àgg na ci mën a lekk ci li ñuy lekk di naan ci leen ñuy ñaan nag day lekk ci li ñuy lekk di naan ci li ñuy naan noonu la ko tontoo muy kon nga xam ne kon ku nekk nag yaay xam fa ngay toll ndax yow fer nga wala feroo loolu mbirum personnel la ku nekk yaa koy xool loolu la ci tontu woon ci saf ak yeneen tontu yu xóot yoo xam ne nii def na ko ci lu mel noonu téere bi nga xam ne Sëriñ Sërif dana ci ñëw wax nañu moom tam mi ngi bindoon ci jaar-jaari sëñ Tuubaa bokk bind ci biographie sëñ ndax bi mu ci bind boobu tam booba sëñ baa ngi fi ci ci ci ci ci mi ngi fi jógee gu fi loolu xëy na daañu ci kon loolu tam la bind ci wàllum li ñuy wax sociologie loolu tam bokk ci ñi nga xam ne bokk ci fànn yi nga xamoon nañ ko naka la ñuy relation relation bu yàqu naka lañu koy defaree relation bu amee noo koy sàmmee lu koy yàq ak lu koy defar loolu bind na ci leer nañ loo xam ne nii delluwaay la boo xam ne nii kum neex mën nga caa dellu te loolu mbind yooyu yëpp nag mi ngi fi yokk ci nag ay xasida yu bëree bari yoo xam ne nii daana ci def ay xam-xam yu wuute yoo xam ne nii daana ko def waaye nag xam-xam bi suñ Mbàkke gën a siiwee nag gën cee fës nag te muy xam-xam boo xam ne nii itam euh, bu raar la woon jamono yooyu mooy xam-xam bi ñuy astrologie te mooy xam-xam bi nga xam mooy gëstu ci wàllu biddiw yeeg maanaam planète yeeg ak yu mel noonu ci lay gëstu da cee def gëstu buur rëy rëy xam nga ne sëñ Mbàkke sëñ bi daf ko waxoon ne ko na nga dem ba tuubaa boo demee nga natt lu mat ñaari kilomètre ci gànnaar ba ñaari mil wala ñaar mu wax boo demee nga sanc fa ndax sama jumaa ja mu fay naal su noppee nga di ko taxaw moo tax wax nañ sëñ Mbàkke bi mu ñëwee jumaa ji fii jumaa ji nekk ak fii ñu nekk nii natt na ko ci fànn yu bëree bëri ay jéego natt ko ci li ñuy jàng natt ko ci fànn yu baree bari ba mu jox ko barab bi barab bi dana jaar jal ñu leeral ne turu gede wi ñu bari bu ñu ko déggee dañu jàpp ne suñu mbàkki daf ko daf ko tudde gede ngir xañtu ay cosaanam ñun fañ dëkk ci Fuuta du gede ñun fañ dëkk ci Golare la tudd moo tax fii suñu mbàkki nee na ba ñu ab déeg la fekkoon dégg moo tuddoon gede mu ngoog waaye nee na sëñ bi daf koon demal Tuubaa moo tax comme sëñ bi daf koon demal Tuubaa nag bi mu ñëwee wutal koo tur moo tax gede ji law ci ni ngay déggee mbal di koy déggee di yëpp ay xeeti déeg la woon yoo xam di ko déggee beele nay wala yu mel noonu ay déeg la woon yoo xam dafay newoon loolu yàgg nañ koo xam ci sunu cosaan ñu koy dàgganteel ay barab kon fii la sax moom tam def ci liggéey nag bu am solo ci wàllu xam-xamu fëlëg boobu bi ko sëñ bi ne da ngay dem Tuubaa jumaa ji àggee ak naal bañ ci waxoon moo taxoon bi mu demee Màkka wax na ne bokk na ci li ko gënoon a yitteel mu gëstu xam-xam boobee gëstu yi def ay gëstu yu xóot loolu lépp ci ay tegtal la kon ci wàcc waaye sëñ Mbàkke rek hmm. boobu nag sëñ Mbàkke def ci ay bis ay gëstu yu xóot ndax ba may foofu fexe na ba xam bis bi nga xam ne nii ci la jant bi tiim kaaba gi ca foofa ca Makka bi mu dellu see Sénégal nag ci la def ay gëstu ci Touba ba trouver boppam bis yooyu nga xam ne nii bu ñëwee mooy tomb ak bis bi nga xam ne nii maanaam jant bi day tiim kaaba gi mu xam ko fu muy toll senegal nga xam ne nattukaayu xibla la boo xam ne nii boo ci nattee xibla xibla bu doy def ci ay gëstu yu loolu ay gëstu yu xóot la yoo xam ne nii def na ko ci waaye téere bi ñu taqrib mawaqitu salaat fi taqrib awqaati salaat téere boobu itam suñu mbàkkee affaire xam-xamu la ci doon gës waxtu julli nu muy fexee ba nga xam dañ ko def noo xam ne nii dootu jeex téere bi wax nañ suñu mbàkkee liggéey na ci at ak ñett la ci liggéey fanweeri at ak ñett yoo xam saa yu xëyee dana xool jant buy fenk ak buy so mu noté ko bu ko ci bis rawee ci déwén sa la koy dakkaat te fanweeri at ñett nekkul lu tombe rek xam ngeen am na ci xam-xamu fëlëg lu ñuy wax isdilaaf isdilaaf mooy atum jullit yi at mi ñu natt ñun jullit yi ak at mi ñëw atum tubaab dañu rawante fukki fan ak benn mm-hmm. atum tubaab da ko ëpp fukki fan ak benn ba bii 254 la maanaam ñaar ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeent la bële di ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom kon mu ëppee ko fukki fan benn fukki fan benn yooyu mu ko ëppee nag dañu wax ne ko dajalee fanweer at ñett fanweer at ak ñett yu nekk atum jullit yi day teeru ñaari yoon ci biir atum tubaab bi mooy kon mëdd na ko hmm. mëdd nga moo la xamante kon bàyyi woo benn bis ci bis yooyu hmm. noonu la ko natte kon fanweer ak ñett yooyu nga xam ne nii waxtu julli suñ mbàkkee def ba kër àdduna tukki moom du jeex tënk ko itam ci li wax maanaam jant bi dox doxinu jant bi la ko tënk tënk ko ci li ñuy wax ñun temps temps yi yor ni nga xam la ñu suñu montre yu mel noonu ñu wax temps nga xam dañ koy dëppoo noonu rek dañ koy dëppoo noonu di ci dox heure boobu normal dëgg de ndax boo xoolee tee léeg-léeg huit day teel lool léeg-léeg mu naaj lool heure bi suñu bàkkee natt nag ci jant bi nag moom moom huit heures huit rek lay doon fi mu nekk noonu du soppi ko benn yoon loolu liggéey la boo xam def na ko ci te boo xoolee même réew tubaab yi nga xam dañoo am jafe-jafe sax ndax léegi dañuy soppi seen seen heures yi def hiver ak été bu ñëwee fee ñu yokk bu ñëwee fee ñu wàññi une heure loolu nag boo jëlee li nga xam suñu bàkke liggéey na ko ci waxtu yi moom loolu dootu la ci fekk xam-xam boobu liggéey na ko ci nag liggéey ci tam natt jàkka ji nuñ koy defee ba mu jublu xibla xam ngeen ne jumaay Tuubaa ji moom la sëñ bi bu njëkk moo ko njëkk natt biñ ko indiwaatee xam nga déplacé nañ ko tuuti aslëf ci mu ñëw ci fi mu nekk nii tey wax nañu boobu fekk na mag di ko dugg waaye moo ko supervisé ci kan maanaam sëñ Mouhamadul baax ak sëñ Mouhamadou Xari mu to ànd ak ñoom ñu jubalaat ko xibla te bokk na ci jumaa yi nga xam ne nii moom jublu xiblaam kenn nattable ko ndax lépp la fu indi maanaam technologie lu avance avancé avancé boo ñëwee boo ko ci tegee net la lay jox kon loolu liggéey la boo xam ne nii liggéey na ko ci wàllu xam-xam fëlëg te bokk na ci li ko gën a na mooy dénk go sëñ bi dénkoon ne ko wàllu yu dem a ci liggéeyal waaye dañu wax borom xam-xam tam nag bu ñu koy wax na fekk borom xam-xam yi seedal ko seen bopp loolu itam borom xam-xam yu bëree bëri boo demee seen seer yi ñu def suñu Mbàkke da nga ko jëy fekk rawat na mooy suñu bokk mauritanien yi suñu naar mbokk naaru gànnaar yi Cheikh Sidi Baba ku nekk na ko ku seqoon ak suñu Mbàkke ay relation yu yaatu la am na xasida yu yoo xam yu bëree bëri yoo xam ne nii am na ci yoo xam mi ngeeg ñu ñu téye ñu mën caa dellu loolu yëpp dafay tëkkale moom boo xam-xam nu mu yaatoon Arabie Saoudite gi la muy soro si ba mu demee Màkka borom xam ne ma ne ko amoon naa ñoom relation képp ku mas a dem gannaawam Màkka dañ la bindal defal la recommandation boo demee am ñu la fay booleel ñu lay taxaw loolu lépp ci wàllu xam-xam waaye itam ci biir Sénégal itam borom xam-xam yi ñu xam yëpp tam dañ ko seere loon loolu am na fi ñuy wax revue du monde musulman benn revue boo xam ne nii tubaab bi ñoo ko doon génne jamono colonialiste yi ci atum 1913 biñ ci génne boo demee ba ñuy wax ci Sëñ Mbàkke dafa am un maanaam ku lettré lool lool maanaam mooy ku bari xam-xam lool lool mm-hmm. yéemi itam li amoon ciy téere loolu ba ne ñoom ñoom ñoo ko bindal seen bopp noonu ne la ne leen tam moo doon chef de la famille des Bousso maanaam moom moo kon ci kanamu njabootu Bousso bi yëpp loolu tubaab bi ñoo ko bind seen mm-hmm. ñoom seere ko yoo xam daana ko def wa ne tam nag yi nga xam ne ni mu daawu ci dara da ci daan bind kon téere yi mu bind nii ko foofa heure yi mu daawul def dara da ci daan bind heure nopplu moom lay jël di ci taalif ay téere loolu tam boo demee ci revue du monde boobu kon loolu dafay tegtal rek daal wàcc waay boo xam ne nii sëñ Mbacke amoon na ko ci xam-xam te liggéey ko ci muy loo xam ne ni nag eh, defe naa ne képp ko xam ne nii ñu ngi lay tudd sëñ Mbacke am nga war tef ci liggéey boobu ñu liggéeyaat ci ba génne ko tasaare ko ba ni ñëpp teg seen ba ndax ay njariñ la fees del dama jëlale waxuma sax ci wàllu politique li mu ci bind loo xam tey situation politique bind na ci loo xam situation bi ñu dund ñu tey tey ñun ñu buñ jëloon lettre ba la ci sëñ Mbacke bi doon rek loolu daf koy daal di mën a régler ci lu gaaw a gaaw a gaaw xëy na loolu jataay boobu loolu yëpp kon dafay tegtal rek ne maanaam bàyyiwutoon genn fan ñaar fukki fan nii sëñ Modou waxoon ne daan ci wax ci xam-xam bu ci nekk mën nañ koo jël par par dina ci wax lam ca bind wax nañ waxoon naa léegi itam ne la xam ne fekk borom xam seede ko Cheikh Anta Diop ku nawoon sëñ Mbàkke la bind ci moom lu lu yu bëree bëri yoo xam ne ay seere yu bëree bëri yoo xam ne ni def na ko ci ak gëstu yoo xam sëñ Mbàkke doon na ko def ci jamono yooyu sëñ Mbàkke itam xamoon boppam loolu nag ndax wax nañ ne am nañu fi ma a ñëw di ay tubaab wala yu mel noonu daal xam naa yéemoon xam-xam bi tax ñu ne kon bu ñu demee dañ la jàppale ci ay jumtukaay waaye dégg naa dafa defal njaboot nga ne leen jumtukaay yi ñu wax bu ñëwee man bu ma fekkee danaa xam ne may jëflanteeg moom waaye nag yéen bu leen fekkee bu ñu leen yàqal la ngeen doon jëfandikoo ndax ku nekk xam na tubaab lam lay jox lam lay jox mën na caa dugal loo xam ne nii na nga doon xamee xibla mën na caa mooy tuuti wala mu dugal ci heure julli soppandiku tuuti boo xam ne yow mën nga ko yeex a découvrir te comme yow li nga yoroon wóor na lu wér la mun la bu ko bàyyi donte nag xëy na léeg mën nga caa xool noo ciy jëriñoo kon moom tubaab yi ñoo ko seeral ak am xam-xamam ak borom xam-xam yi nga xam ne nii nekkoon nañ ci réew mi waaye defe naa suñu sërif dana si ñëw daaw rek ñu toll ci at ay jur ay nangam weer def naa li ñuy wax NASA NASA mooy eh, maanaam agence spatiale bi gën a mag ci àdduna bi te américains yi jiite ko nga xam wàllum dem ci weer ak dem ci planète yi mooy seen liggéey def naa ñëw nañ fi ci kilifteefu professeur Maram ma Maram Kayre def ay gëstu yu am solo yoo xam ne nii def documentaire bu am solo boo xam naa ne ñoom suñu sërif danañ ci ñëwaat ci kanam tuuti kon loolu daal si fàllu xam naa dañuy tënk foofu balaa ñu dellusiwaat tam ñu dellusiwaat kon kooku mooy sëñ Mbàkke ci li mu liggéey ci xam-xam waaye itam nag nekkoon ku sëñ bi doyloo mm-hmm. sëñ bi ñëwoon na ci gannaaw tuuti waxal ne la sëñ bi comme doyloo ba doyloo ci boppam def naa ne foofu la doyloo mën a yem te te te magi murid yi ngay gis yëpp tam ci nekkuk sëñ bi képp ku ma sànn dellu ci boromam bu sëñ bi sëñ Mbàkke lay yebal ne boo demee nga taxawu ko ba jébal ko boromam yéwénal gannaawam tam loolu tam xam-xamam ak moo taxoon mu mu def sëñ Abdou Aziz si si ñor maanaam sëñ Abdou Aziz ma nekkoon xalif teewoon dem nañ fa bis boo xam ne nii ñoo toog mu nettali bi El Hadj sëñ Mansour wàccee liggéey délégation bi demoon di jaale ji chef moo nett la ci boppam ñu dégg mu ne sëñ alaaji Malick si bi mu wàccee liggéey 1922 sëñ Mbàkke maanaam sëñ mag bi sëñ Mbàkke ak maam Seex Anta la yebal ne leen dem leen jaale ji te bu ngeen demee na ngeen fa toog ay bis moom nag foofu la yem ñun nag ñoo ci teg lii may bëgg wax ndax danoo xalaat ne sëñ bi ko xamoon dafaa yóbbu ñaar yi nga xam ne ni ñoom dong ñoo mën a jagal àdduna muy xam-xam ak xaalis muy bu dee lépp lu fa war a leer suñu bàgg dana ko leeral lépp lu soxla suñu fa war a faj maam Seex Anta mën na koo faj kon loolu rek mooy tegtal tale mu ngoog loolu tegtal la rek ci ne kon doyloo ko sëñ bi doyloon kon daal kooku daal mooy sëñ Mbàkke ci tënk xam naa du ñàkk dañ ci ñëwaat ci kanam tuuti euh, jërëjëf jërëjëf euh, bokki télévision euh, Lamfal TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp ci internet bi di jaajëfal itam bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy rajo yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci xam-xam yi nga xam ne xam-xam yu raar la te nga te nga tudd ko te kon day mel ne sax buñ doon wax dëgg dëgg teg gede fi la bibliothèque bi nekk ndax bibliothèque boo fa duggee day day woo bépp xam-xam boo soxla nga fekk ko fa fii nag boo fi duggoo jërut ngay wëri ay Karl Marx ak ñeneen ya ca aju mbooleem luñ tënkoon ñoom te teg ko ci àdduna rek sëñ Mbàkke tënk na ko te teg ko ci xam-xam kon day mel ne loolu dëgg dëggi gede mooy bibliothèque te euh, loolu boo desuwaatee ci xam-xam da ngay wax ne jamono ji muy bind xam-xam yooyu xam-xam yu raar la ca jamono jooju waaye bu ko delloo siwaat na ci jamono ji it xam-xam bu raar lay doon ndax néewaane nga gis nit koo xam ne qualifié ne ci fànn yooyu mu bind te lam ci bind mu doon loo xamante ni dara du ko tuxal rawatina nag xam-xam bu jëm ci wàllu euh, jant beeg ya ca aju ndax jafe-jafe yu bari dëkk sangam wari na dëkk sangam duñ wari dëkk sa benn dëkk sax nga mën faa am ñaari korité wala ñetti korité ñàkk sukkandiku mas na ma ànd ak sëñ Seexanta ñu dem ci sëñ Mourtada mu war a julli si àjjuma ci ndaam booba ji sëñ Mourtada day waaj ngir ñëw julli si. ñoom ñu defee ne sëñ Mourtala daa nar ta julli si ñu julli wàcc ko bi ñu àndee nag ñëw ci julli gi booba sax da doon taw biñ dikkee fekk ñu julli ba nag mu ne da ngay seet lii rek sukkandiku ci waxi tubaab yi def ko waxi malaayika seen montre yi ñu sukkandiku te dara du ci dëgg loolu kon day tegtale ne moom buñ sukkandiku woon ci waxi sëñ Mbàkke so moom waxtu wa du ko raw yaakaar naa ne loolu lu am solo la kon damay ñëw rek e, e, sëñ Serif ci téere bi nga xamante ne bii sahaadatu tulaab la fi sirati Cheikhul Xadim te wax nañ ne bi ko sëñ Mbàkke di bind sëñ Tubaa ngi fi kon loolu moo gën a wér lépp luñ bind ginnaawam yaakaar naa ne loolu boo ci ñëwee tuuti ak gëstu yi ngeen ci def ak li ngeen dajale ci téere bi ak ku ko soxla fan ngay jaar yaakaar naa ne dana gën a mën a firndeel li nga xam ne sëñ Fallou doon ko wax te mbokk yi ñu xam ne mbooleem lii ñu fi wax nii doonut aw léeb ku ñëw gee ñu wan la ko ndax bare na ci luy wax loo xam ne aw léeb doon ndax dañ naan amatut waaye nag lii ñu leen wax téere yi sëñ Mbàkke bind côté bu nekk lam ci bind boo ñëwee gédé gi daañ la wan mbind mooma ak fam ak fam kon ma bàyyi sëñ Sërif nuyoo mbokk yi ñëwal ñu ci téere bi aousubillahi min asheitan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain jërëjëf sëñ fàllu bu sa alxasan waaye jërëjëf sëñ fàllu galas ginnaaw bi nga xamante ni nii nuyu nañ kilifa yi di siyaar mbokk yëpp di jël kàddu ci kanamu kilifa yi xanaa day ndigal rek ndax euh, tuuti nañ lool ci leeral lii nga xam moom la ñu teg waaye njëkkanteeg waxtu wi rek euh, dañuy wax ni téere bi nga xam ne mooy sahaadatu tullaab fi siirati cheikh xadim day téere boo xamante ne nii dafa am ay ràññiku yu ci nekk téere bi nag naa ci ñëw ndax sëriñ Mbàkke Buso moo ko taalif ci lu wér taalif ko ci dunduk sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu téere bi nag li tax mu am xiima mooy ki ko taalif ak ci kiñ ko taalif ak jamono yiñ ko taalif hmm. maanaam ñetti tomb yooyu rek daanaka moo làmb téere bi ki ko taarif di sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu anhu nekk koo xamante ni ku ne xam na ak jaxasoom ak sëriñ Touba ku ne xam na xam-xamam ku ne xam na ragal yàlla am ku ne xam na fi ko sëriñ bi tegoon ak ni ma xamee mbirum sëñ bi waaye ci kim ko taalif tamit di dellukaay almuridiya di Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ak jagleel yam am te sëñ Mbàkke junj ko ci téere bi muy am solo waaye jamono ji mu ko taalif tamit ndax 1902 ci jamono yooyu lay lay tollool bi sëñ bi jógee ci géej gi rek li ko waral tamit lu am solo la mooy sëriñ bi ko bëggoon xam-xam la sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu amoon na yéene ci ñuy mu moolal ko ay téeréem mu diisoo ci ak maam Cheikh Anta ba lépp yemb ba ñu war koo yóbbu dëkk boobu ñuy wax Xaahira di Égypte euh, jaare ko ci ab muritam bu ñuy wax Cheikh Ahmad Ibn Abi Bakar at Tibre di ab shérif marocain koo xam ne muritub sëriñ Tuubaa la woon kookee nag ba nga xamante ne nii téere bi egsi na ca moom téere bi nag lii bokkut ak téere bi nga xam ne moom lañ doon mool maanaam xase téere sëriñ Tuubaa lañ doon mool yi nga xam ne moom la taalifoon di ay xasaayit ak yu baree baree bari saxaada tullaab mu taalif ci naxwu ci bokk loolu sax naa ci waral moo waral tur wi nii waaw yoo xamante sëriñ Tuubaa moo ko taalif di ay xasaayit ak i téere xam-xam ak yu baree bari yoo xamante ni dañ ko waroon a mool ca keer bi bi nga xamante ne nii nekk dajale nañ ko ba mu dem bañ ko jàngatee ba xool ko ak xam-xam bu am solo bi ci nekk dafa mel ni dañ leen a xaw a corriger ci waxin dañ leen lu mel nii ki ko taalif lañ war a bëgg a xam kan mooy kan ba pare ndax bokkut ci ay norme xam-xam ñu ñu ñu mool ab téere ci waxuñu maanaam ki nga xam ne mooy almusannif alxaqiqi mooy ki ko taalif dëgg dëgg dëgg ak itam war rawatina lu am solo nii ñu mel ni loolu nekkoon ab àqaba ab gàllankoor sëñ Amar juñu ne ko léegi sëñ Mbàkke sëriñ Tuubaa dana ko woon bul waxati ci man ndax danga maa xam waaye bii yoon moo ko jox ndigal ni ko kon lool yi nga xam ne moo nar a nekk gàllankoor gi mooy yow xam nga ma xam li ma may kan mu mel ni ñoom ñaar dañ cee xaw a dëppoo mooy bi nga xamante ne nii sëñ tuubaa digal na sëñ Mbacke Bousso ni ko bindal ci man kon xam le may kan sëñ Mbacke defe ko ci uslub bu yéeme ndax li ko waral mooy boroom xam-xam la te xam na ñi muy waxal ñoom du sénégalais yi kese ndax naare ñoo bëgg a xam kii mooy kan mu def ko ala riwaaya adabiya mooy loo xamante ne day mel ni xayaal lay doon fi mu ko tàmbalee dafa jàppee boppam koo xam ne dëkku fi daal di def li ñuy wax euh, atar tatawriya mooy dafa muur tur wi nëbbu ko daal di tudde boppam Abdullahi al Madani mel ni ku jóge ca Xijaas ci ci loolu nag ci la profité pour téere bi neex ndax booy seel téere bi dafa am solo muxaddima bi dafa dafa dafa yéeme lool moo tax sax ñenn ñi naan waaye gi ku ko bind est-ce que naar ba bi mu koy def nag nga xam ne dafa mel ni ko déparé ca Madina a jaar ci jamono yooyu ca islaam islami jaar Turki jaar dawla Osmani bi nga xam ne moo nekkoon Turki jaar Chimalu Afrique ba dugg Maroc ba dugg Mauritanie di wër nee na ma nekk koo xam ne damay wër siiratu saalixiina yi benn waaye daal bu baax rek la jógee fële ca Hijaaz di wër ku baax ñu baax ñi fu mu dégg ku baax ci réewi jullit ñi rek mu gëstu mbiram nee na bi mu ñëwee ba nga xamante ni dugg na bilaadu Mauritania nag yi tey fekk fi jaar na fi wax na fi mu jaar fépp lu ci nekk mu leeral ci dara téere bi dafa gàtt waaye dafa am solo daal nii nag maa ngi ma dégg nag ku ñuul ku ñuy wax ku nekk ca dëkk bu ñuy wax Sénégal ba fa duggee nag ba jànkonteeg la ma jànkonteeg ba jaar ndar ba dugg ba gëstu siiraam foofu la déparé nag di wax ci sëñ bi leeral naw askanam bu am solo def ci taxqiq bu am solo boo xamante ne nii fi ñu bàyyi ko waaye leeral ay sifaatam mooy ay jikkoom ak i meloom leeral jël gañ ko jël yóbbu woon lan la ak loo ko waral ak sabab yi dëgg dëgg dëgg dëgg lan la waaye ci wàllu histoire téere bi dafa am solo ndax ci histoire Sénégal bu dee borom xam-xam wala ku ku bëgg a jariñu soo jàngatee téere bi e, li ñuy wax alxaal alxaalal amma mooy globalement situation bi amoon Sénégal jamono yooyu noonu ci 1902 ba ni diggante boobu da tee leeral lu am solo buur yi fi nekkoon ak xasawaat yi yi daa am ak maanaam euh, gaa yu baax yi fi nekkoon leen istimaar bi son yu mel noonu yu bëree bëri daal mu leeral ko ci loo xamante ne nii ci histoire bu am solo di màdda xaama boo xamante ni suñu Mbàkke def na ko ci téere bi mu leeral ci histoire bu am solo solo solo ci wàllu Sénégal ak islam ni mu fi tolloon ak na mu fi meloon ak ñu baax ñi fi nekkoon liñ jànkoonteeloon daal duggaat ci sëñ bi nag daa dellu si ci moom bi mu dellusi ci moom nag daal ci leeral li nga xamante ni mooy kooku mooy kan dëgg-dëgg ba situation yeeg yëpp yëpp yu ci bëree bëri daal mu leeral ko ba ni nag dégg naa ni nag maanaam jëlee jëlaat nañ ko mu ngi seeni loxo waaye ci gàttal leeral na ci loo xamante ni nii képp ko xam da ngay gëstu di ko soxla ndax ci wàllu histoire waaye ci wàllu diine ji waaye ci wàllu sëñ Tuubaa mooy kan di ci di ci junj nag waaye day dem ba xaw a feeñ nag ndax muy xam naa ci moom yoo xamante sax du ma ko wax te moom dañu woon nit la koo xam ne dëkku fi waaw dañu woon nit ku lay ko xam dëkku fi waaye di leeral ba waxaale loolu léeg ci biir loolu tamit euh, bu ñu bëggee leeral téere bi sëñ Mbacke Bousso moo ko def ak ko loolu moom paas boo xam ne weesu nañ ko la ndax lépp li nga xam ne am nañ ko ci ay addil la ci ay preuve bi ci njëkk ca gën cee am solo mooy sëñ Modou Khari mi nga xamante ni jaxasoo naa sëñ Mbacke xam ko dund ko di di di seqatun sabt di borom xam-xam di xaafisun xujja koo xamante ne nii du waxantu moom leeral na ci kàddoom li téere bi suñu mbàkkee ko def waaye li nga xam ne mooy masaadirul muride yi ñu xam tey mooy ñoom irwaak meen baax yëpp téere yooyu yëpp Mouhamadou Amine Dagana ñoom ñëpp dañ cee tudd maanaam ni Seexul Muso bi xaale kasa kasa xar fii ci téere bi wax jooju lañ fekkaat fii nga xamante ne nii cheikh Mafal Fall Mafal Fall tamit di borom xam-xam bu mag a mag ci téere boobu ñuy wax isaaxatu sadaf an fii baax di ulamaa yi wolof tudd na ci sëñ Mbàkke Buso tudd ci téere bi nas texte bu gudd sax la ci naq la boo xam ne boo dellusee ci téere bi fekk fi mënus bi nga xam ne waa Gédé moom lañ gis xam ne kon la chaque ni wér na moo ko def waaye solo gi eh, dinañ ci ñëw buñ ko ardoo bis ba nga xamante ni sëñ Sàmbu Buso dina ko leeral waaye li ma bëgg ñëw mooy ban liggéey la ci laj na bi def laj na bi mooy commission bi nga xam ne mooy Sulumul Wusul bi nga xamante ni mooy saytu xam-xam fii ci Gédé def nañ ci liggéey bu am solo ndax téere bi nee naa dafa nekk euh, maanaam dafa dafa benn compact la boo xam ne dafa mel lu gàtt waaye dafa dafa sakkan sëñ Mbàkke nag noonu lay waxee ndax mu laa mulaaxasaat yi bari na du ci ñëw waaye luy wane ni ay waxam la da cee bari lool ak ni muy waxee ak uslubam ndax bi mu defee muqaddima raayaa boobu bu rafet boobu ci biir wax ji moom dafa dellu ci uslub bañ xamoon ca moom maanaam soo tegee ni ay waxam ak lii rek da leer ni ay waxama su ko defee nag ci laj na bi l ci def bokk na ci mooy wax yu xóot yooyu muy wax ak arab yi nga xamante ni day xaw a xóot dañ koo firiwaat leeral ko ci bi loolu la ñuy wax taxqiq ak sharhul mufradat lughawiyya a tumuranke bokk na ci li ni tudd na ko ci euh, ay xadis am solo waaye fii tamit xadis yi ko fay junj ñu taxrij ko taxrij ñu wax fa mu nekk ak ndax wér na ak wérut ak riwaaya yi loolu laj na bi def na ko ak aaya alxuraan yi mu tudd tim ñu askanale ko ak yu mel noonu waaye bokk na ci laj na bi def te bépp tur wax na ci tudd bu dee borom xam-xam bu jara leeral ñu leeral kooku mooy kan tarjumaal ko moo xam suñ bu soobe la moo xam soxna jaara la moo xam ñu baree bari ci mbokk yi ñoo xam ne suñu mbàkke tudd na leen ak buur yi ñoo ñëpp ñu ñu leeral leen ak awasim yi mu tudd mooy mooy capital yi ak duwal yi mu tudd kon daal taxqiq lañ ko def taxqiq ku kuy borom xam-xam nga lan mooy tax taxqiq mooy lépp lu ci jar leeral rek laaj na bi leeral na ko muy téere boo xamante ni nag maanaam bu ñëw ci waxtoom la ndax yëf yi jaxasoo na waaye kii ko taalif nga xam dafa xam sëñ bi lool xam mbiram lool may si tibbee lu baree bare bare ci xam-xam masalan bu fekkoon da ngaa bëgg a gëstu ci dëddug Sëñ Tuubaa kese suuf doom boo ñëwee ci téere ba nga cay fekk loo xam ne doy na lu sëkk boo doon gëstu ci bëgg gu bëgg xam-xam boo yegtee nga fekk loo xam doy na sëkk bon gis ci mbokk mu demee ak am solo bi mu def ci maaram ak yu mel noonu ak mel noonu ak yu mel ni yi suñ gas doon yi nga xam ne xalt mën na ci am mooy jaxas-jaxas mën na ci am suñ bàkkee da koo leeral leeral xam ne dafa mel ni dafa am lu muy radd lu muy tontu ndax borom xam noonu lay defee toujours lépp loo nar a nekk lënt rek da koy leeral leeral boo xam ne dootu am mbajaal li chak waaye boo ñëwee ci wàllu maanaam diggante ma ma maasa xadas man man moo xew diggante sëñ bi ak tubaab loolu da cee leeral leeral goo xamante ne nii bépp tuuma boo xamante ne tuuma war nañu ko tuumaal sëñ bi rek da koo dindi comme ni mu nekkee moom Moussa daay man noonu la Moussa mel mooy nekk aawukaam rek leeral ci lu am solo loo xamante ne nii nee jàppewuñ ko lu dul ak soxor ak kañaan ak xam ni maaraka bi dëgg dëgg dëgg moom xuwal muntasir mooy mooy kiy gañe loolu moo tax ñun ñu bëgg koo faagaagal bëgg koo yàqal lii nga xam ne moom ci ci la nekk ak ni ko nit ñi wuyoo ak yu mel noonu xamante ne nii dafa dafa bàyyi xel lool kon daal bañu bañ a guddal rek dañu jox suñu am maat bu gën cee idaafa ndax dañ maa bi waaye li am mooy téere la boo xamante ni daal képp war na koo am naa bu ñu koy aar daan leeral maktabaat yi nga xamante fa lañ koy yóbbu ko kooku bëgg am noo koy amee ak njëgal gi mel noonu kon jox am maat mu àggale waaw bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil aalamiin jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi sant bu baax Serigne Fallou Hassane ci leeral yi nga xam ne leeral na ko kan mooy sëñ Mbacke Bousso ci taarif bi mu ko def di sant bu baax tamit Serigne Fallou Galas Galas Silla di sant bu baax Serigne Chérif ci leeral yi mu leeral li ma bëgg a wax rek mooy euh, yitte yi nga xam ne moom la laj na saxaafiya wal ilmiya bu bu bu gari li nga xam ne mooy seen yitte dëgg-dëgg daal mooy saytu xam-xam ndax. sëñ Fall wax na ko léegi sëñ Modou wax na ne sëñ Mbacke Bousso wax na ci lu mat ñaar fukki fan te ku ne xam na ne sëñ Mbacke moom lépp lu mu def rek xam ma lay doon moom waxam day laaj tasaare day laaj leera day laaj sharaa léegi nag ñu ne kon léegi nag liggéey bi nga xam ne moom lay moo gën am solo ci li muy def mooy fas yéene génnee loolu nag ndax yaa ngi wax ne léegi lii du ay lépp waaye ku ñëw da ko fekk waaye dañoo bëgg ku ñëw fekk ko fi tamit nga ñëw am lu leer. comme niñ def téere bi ndax suñu mbàkk ni muy waxee rek ku miinut waxam miinuloo uslubam xëy na dana am lu lënt ci say wala lu leeru ci say wax laj na mi nag loolu mooy moo ko tax a jóg muy génneewaat lee euh, euh, euh, xam-xam yooyu saraa leeral ko buñ ko defee ba noppi it nañu nañ ko baaxoo defee jaarale nañ ko ci borom xam-xam yi ci dëkk bi jaaral nañ ko ci borom xam-xam ñu gëstu ko xool ko toppaat ko ba mu nga xam ni yemb na ñu doog koo génne kon laj na bi li nga xam ne mooy yitteem dëgg-dëgg daal mooy saytu ndono lu diis loolu ndono lu foor loolu nga xam moom suñu Mbàkke Buso bàyyi ñu génnee ko teg ko ci taabal ji fomp ko dindi pënd bi ci nekk ba ñëpp mën koo jariñoo ca lépp xam nañ ne suñu Mbàkke Buso moom euh, xam-xam moo ko ñoroon ndax foofu la ko sëñ Tuubaa féetale li tax ñu njëkk bii tamit mooy sëñ bu Buso ku ne xam ne sañ tubaa rek mooy mooy tàmbaleem mooy léppam moo tax kon lépp lu ñuy tàmbale si moom rek dañuy tàmbale ci sëñ Touba comme sëñ Touba lañuy tàmbalee nag ñu ne la sëñ suñ Mbàkke njëkk a wax ci sëñ Touba na njëkke loolu loolu jàllee téere boobu ñuy wax yawaaqitu salaat fi taqribil salaat ñi tàmbali nañ ko moom it ngir gën koo leeral ngir booleem tënk yi falak yi nga xam ne ni sëñ Mbàkke Bousso ko lépp te muy yoo xam ne mën firi dañ ne bi fas yéene koo jël firi ko leeral ko chara wax lan la ci lan la ci namm ak téer bi nga xam mooy mawaqit silaat boobu it fas yéene nañ ko moom tamit teg ko ko leeral ko jaar mool ko comme nañ mool bi loolu mooy yitte yi nga xam ne nii lañ na ilmiya wa thaqafiya bu gede bu sulam wusul loolu mooy seen yitte loolu laa ci bëggoon a dolli di wax ne rek incha allah le 31 le 31 bii di ñëw euh, ci trois heures bu jotee fii ci saal bi incha allah danañ ard téere bi si borom xam-xam docteur Sambuso dana ñëw ardu ko ci teewaayu borom xam-xam yi ci dëkk bi yëpp bu noppee sëñ Mamour Mbacke Hamdi dana ñëw moom tamit def ci ak alixaana ak mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi teew ñuy sàkku rek képp koo xam ne nii it xam-xam yitteel na la siira sëñ Tuubaa teel na la ñu ngi la ci woo nga ñëw ci su ko defee buñ buñ fa tooyewee leeral ki bëgg téere bi naka lay def ba ba jot ci ndax am na loo bu yegsi am na loo boo xam ne li ngi ci yoon wi ndax Égypte lañ ko lañ ko móolee loo bi ñëkk a yegsi rek moom la ñu bëgg a tasaare leeral ko gannaaw bi nga xam am na dal suñu am ci ndigal suñu muntaxaa am na uh, som bu mag boo xam ne dajale nañ ko incha allah fas yéene nañ koo jébbal suñu muntaxaa mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon wi ndax liggéey bu mel nii ku ko liggéey ci Sëñ kenn nañ war a cee jiitu suñu muntaxaa kon incha allah lajna bi dana def benn délégation yóbbul ko suñu muntaxaa sàkku ci ndigalam ak ñaanam yooyu rek lañ bëggoon a leeral suñu Fall ñu ngi lay sant ci dëkk bi nga xam ne dëkk nga fi di ñaanal yàlla yóbbu ñu ci bés yooyu incha allah asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ jërëjëf euh, sëñ Serif jërëjëf euh, tegtale rek ci xam-xam booy wax euh, waxtu wu ne li nga gën a dëgmal day gën a leeral li nga weesu ndax wax nga ne ne sëñ Mbàkke téere yi biñ koy mool ndax mi maam Cheikh Anta demee Gabon fekk sëñ Touba la la la ko sëñ Touba joxoon téere yooyu biñ njëkkee war koo mool kon 1902 la sëñ Touba ñibbisi jàpp 1903 ci biir waxi sëñ Mbàkke mi ngi wax ne. déggaat naa ne jàppaat nañ ko yóbbuwaat ko kon loolu 1904 lay doon kon loolu lay tegtal rek li mu wax ne diggante bi mu ñëwee ci la defoon téere bii avant ñuy mool téere ndax bi mu ñibbisiwaat 1912 njaarim fekk nañu mool téere yi ba andi ko loolu. mooy mbooy boobu boobu eh, ñëwagut boobu. waaw ndax déggaat naa jàppaat nañ ko mooy demaat na gànnaar kon loolu mooy tegtale lim njëkkoon wax kon sëñ Fallou yaakaar naa ne andi nga ci fànn xam-xam yu bari te loolu danañ ko gën a toppaat mu gën a leer ndax doonut loo xam ne dañ koy wax di sànni ne moo dañu bëgg mu doon wax joo xam ne ku ne anamu ñoo la ma nga ne waaw léegi nag eh, waxtaanee nañ xam-xamam waaye ci biir say bi ngay daaneel da ngaa waxtaanee nag ak murit saadi xam te sëñ Tuubaa moo ko seere ñaari baat yooyu borom xam-xamu la waaye murid saadix la xam-xam bi moom leeral nga ko bëggoon nañoo xam ne ñaar yooyu nes ko boole doon borom xam-xam ba noppi di murid sëñ Fallou ci buñ delloo ci mbindum sëñ bi sax dañuy jàpp ne bala ngaa nekk murid saadix dëgg dëgg da ngay doon borom xam-xam. ndax boo demee ci téere ba mu ji ñoon léegi te sëñ Abdou dajale ko am na ci laaj yi tubaab yu tubaab yi laajoon sëñ bi laajoon nañ ko kan mooy murid mu ne al muta'allimuna bil qiraati awalan nee na murid yi mooy ñi nga xam dañuy jàng ba dañu door a mën a sóobu yoonu murit moo tax kon boroom xam dëgg-dëgg moo mën nekk murit saada xëy lool nag moo mooy mooy li daloon sëñ Mbàkke ndax dañ nett ne sëñ bi wax na ne bokk na ci pexe moom sax moo ko waxal boppam min ma kaa it fu jaari lahin sadul muridin ani taxallum nee na bokk na ci pexe mi nga xam ne kuñ kuñ gën kuñ jàmm la kuñ rëbb la dox gi dox diggante murit yi akum njàng xam-xam kon murit gi xam-xam ponk la ci sëñ bi dafa wax ne yoonu murit mi ko tabax ci bi ko was ci ñetti was al naa fi al amalu saalih al adabul mardi xam-xam bu am njariñ moo ci jiitu mooy laltaayu murit ki door a mën a sax kon jëf ju baax ak ami teggin balaa man a am xam-xam day lalu ba noppi loolu moo tax xam-xam mooy cosaanu yoon murit te sëñ bind na ko nag ci fànn yu baree bari wax ko ci fànn yu baree bari wax nañu tam képp kuñ ko mës a andil itam li muy njëkk a laaj mooy fa àlluwa ji toll bu dee ko toll ci jàng mu nañ ko yóbbu barab sàngam ñu jàngal ko te yar ko loolu la daan boole bu dee koo xam ne itam weesu na ku ñuy tegal àlluwa ki téere moom moo koy méngool boppam di ko jàngal ci ay tombam ak i wolofam ba mu xam li mu war a xam ak booleeg nag muy def muy gis kon xam murid dëgg dëgg ba ngaa nekk murid saada day fekk nga jàng dañu réer te boo toppee mag ñi toppoon sëñ bi kenn ku ci denc réer amutoon koo ci jël rek dafa jàng ba dañu réer xëy na li ñu wut si li wut si bi kon leneen la waaye du woon xam-xam kese bi ndax ñoom ñëpp bi ñëw sëñ ku nekk jàng ba dañu réer maam Cheikh Ibra Fall mi ñu ci gën kii ne mooy gën daanu ko te jàngoon na bay taarifi téere kon xam-xam bi dafa yàgg ci murid gi kon murid saare boo gis rek xam-xam ba ma ngi te gannaaw te sëñ bind na ci maxaaliqu niiraan ne iskulu aamilin bilaa ilmin yura fa sax yuhu mislu habaa in nusra mm-hmm. nee na jëpp jëf joo xam yaa ngi koy def tegu ko ci xam-xam mel ne pënd boo jërim ànd na ngelaw li naaw dem du kon loolu moo taxoon iraada saadiqa googu sëñ bi seere loon ko sëñ Mbàkke ndax xam gu mu xam ndax sëñ sëñ bi ko dafa wax ne ñuy ma ne ñuy rek la maanaam gumba guy wombat guma wala gum wala gumba guy wombat njàccaar wala njàccaar lay wombat njàccaar mm-hmm. njàccaar lay wombat njàccaar nag mooy taalibe dëgg dëgg ak sëriñ oh. taalibe day xam sëriñ xam nee na bu fekkente ne sëriñ taalibe da xam sëriñ xam bu sëriñ ne day jaar yoon taalibe mu day jaar ci yoon loolu loolu mooy mooy njaacaar la yoo man gumba nag mën naa maanaam gumba gu yoo man njaacaar nag moom bu bu naree dëgg ci kàmb njaacaar jaar na rek gumba gi moom sëriñ mooy tàbb ci biir noonu da ko tënke wala gumba gu amat gumba ñi ànd daanu ci kàmb kon murid dëgg dëgg dafay fekk a mën te loolu moo tax sëñ bi daawul jëfandikoo ñun baatu taalibe xëy na moom la ñu jëfandikoo baatu ci saan la waaye sëñ bi mu jëfandikoo dëgg-dëgg mooy ko topp amartu jameel at baa la daan wax digal naa ñu mboolem ñu topp taabe nag mooy koo xam la muy topp da moom day xam ne sax boo juumee moom day xam ne moom fii la war a jaar kon loolu moo tax eh, sëñ Mbàkke boole woon xam-xam nekk murid saadiq loolu tam yàlla mayoon ko nag ci loo xam ne nag diggam ak sëñ bi xam gum xam sëñ bi tam mayoon na ko ci lu bëree bëri ndax defe naa ne sëñ bi ku ko ku ko xam rek da ko naw xëy na ki ko ki am sikk saak mooy ko xamul waaye képp ko xam da nga ko ndax bu dee xam-xam bi gëstu yow moo la ci raw fuuf bu dee ci wàllu jaamu yàlla moo la ci man fuuf bu dee sellu biir kenn waxaale ko kooku nag kon boo gisee ma ak yow foo jaar da nga boo dee borom xam bu sell da nga ko naw loolu moo boole woon sëñ Mbàkke ak ak sëñ tam nag doy woon ko ci fànn yu bëree bëri ndawoon ko tam nag ci fànn googu ndax ndax daana ci joxe misaal lu bare bare ku mel ne ak suñu daaru Assane Ndiaye ne suñu daan wax ñii ku ñu lay doon daal ci yow lay doon ndax topp gi ñu topp ci yow wax nañ ne sëñ bi daana wax ne daana wax ne Mbàkke bu si daa gore rek daa gore ñu jëmm ju gore ngi nii waaye mënoon naa def ni ñëpp def ndax ku nekk xam ñu jamono tan jaxasoog ñoom lool ay nattangoo lañ ko defoon xëy na duñ tudd ay tur waaye ñu jamono ci borom yi xamul borom yi ñoo xam xaal nañ ay yoon ñoo ñëpp ñoom ay nattangoo lañ defoon suñu Mbàkke kon nag bu ko neexoon mu def ñooñu xëy na xëy na ko topp gi toppoon sëñ moo tax su mu ne moom ngor gi moo ko may lu mel noonu jëlee nañ sëñ Cerno Buso moom sëñ mu nettali ne sëñ Mulaay moo ko nettali ne sëñ Tuubaa moo ko wax nee na sëñ sëñ Mulaay ko sëñ Tuubaa nee na ko Tuubaa bi dañoo loq njóor lu leen laaj nañ ma ko ma nekkee ci géej gi ne dem nañ ba laaj mi kan mooy sa taalibe dëgg-dëgg man leen Mbàkke Buso oh. laa <laughs> ilaaha illallaah <laughs> eh, jërëjëf Eh, jërëjëf itam mbokk yi ñuy topp ci seen télévision Lamfal TV mbokk yi ñuy seetaan ci internet bi mbokk ñuy bàyyi xel ci rajo yi noo leen di jaajëfal baax a baax ñu ngi fii ci Guédé yaakaar naa ne eh, buñ doon wax ko xam dëgg-dëgg sëñ Touba mën nañoo tudd sëñ bu Bousso waaye buñ doon xamee nag ku sëñ Touba xam dëgg-dëgg mën nañ ne sëñ bu Bousso la sëñ Touba xam seenu ànd yàgg na ba noppi lépp dëgg la seenu ànd yàgg na ba noppi lépp dëgg la te bu ñu wax ne sëñ Touba li li li li ma menn mag di wax naan sëñ Touba mu résultat daa feeñ ndax buñ ko nee koo defar mu wane sëñ Mbacke Bousso wane maam Thierno wane maam Cheikh Anta wane Cheikh Ibrahima Fall kon ay defaram day jekk waaye sëñ Mbacke Bousso doy na sëkk ñu ne ko koo defar rek mu génn sëñ Abdou Khadir koo formé rek mu génn sëñ Abdou Khadir doy na ndax yaakaar naa ne ñi jamonoon teeg sëñ Abdou Khadir ñëpp sëñ Abdou Khadir doy na leen ci seen adduna doy na leen ci seen alaxira te ci loxol sëñ Mbacke Bousso la jaare kon eh, waxtu wi jàpp jàtt nañu ma bàyyi sëñ eh, Serif mu lu mu leeral ñu tëj jotaay bi xanaa di yokk ci ni lekk li nga xam ne laaj na bi def na ko mooy commission bi lépp loo xamante ne ni eh, ay bind lay suñu Mbàkke bindoon ci li aju ci sëñ Touba ci jëm ci wàllu way mooy mu la xaqaat lañ ko tuddee dugal nañ ko fii ci téere bi bokk na ci bi ci am gën a am solo mooy xasidatu araaka googu nga xamante ne nii ci la ko sëñ bi ne woon bu ma wayeeti mooy da cee leeral yu bëree bëri ci mbirum sëñ bi leeral ci lu bari ci ak taalibe leeral ci bari ci maqaama bi sëñ bi am bokk na ci mu musaajalaat yi mooy diggante li mu doon wayante sëñ bi maanaam loolu soo ko loolu rek daanaka doyoon na sëkk mooy maanaa yi mi yi ci nekk ak li sëñ bi wax ak moom suñ fàllu junj na ko léegi boo xam nga suñ mbàkkee eh, maanaam suñ dafa njëkk a wax ne suñ tubaa alal cheikh rasil jili busraaya abqaahu yahuddu bina al jahli wa shakka mawlaahu ba xasida ka jeex suñ tubaa tontu ko ci benn bayit yenn xasida daani ko fa minni ila man maala qalbi li luqyaahu loolu rek leenu sëkk koo xam dama ko namm daani ko xalili anisi man radi man radina sajaayaahu sama xarit sama wëttal la damaa gërëm ay jikkoom muy ay kon ay xasaayid yu am solo yoo xamante nii lañ na bi def na ko ci waaye téere bi biñ paree tamit yemuñu foofu gaaral nañ ko borom xam-xam yi comme ni ko sëñ Amath waxee bokk na ci sëñ Bassirou Anta Niang mu def ci ay témoignages yu am solo bokk na ci sëñ Mamoun Bousso mii di al imam ak borom xam-xam yu bari yoo xamante ne nii daal euh, def nañ seen taxliqaat ci téere bi mu téere boo xam daal ñëpp a koy fuglu euh, am njëriñ daal mu ne su koo wax fii ci jotaay bi waaye bu ñëwee ca bisu ba dina leer ndax siira la boo xamante ne nii maam dellukaay bu dëgër sëkk la bu mat sëkk ci yoonu murit comme ni nga xam ne saxiixul buxaari daa nekk dellukaay ci euh, maanaam islam bii bokk na ci dellukaay yi gën a mag ci yoonu murit ndax ci bokk ni ci njëkk taalif ci sëñ Touba ca ki ko taalif nekk koo xam sëriñ Touba kon loolu jar bàyyi xel la Eh, jërëjëf eh, sëñ Serif jërëjëf sëñ Amath jërëjëf sëñ Fall Boussa Assane jërëjëf itam bokki auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi ñu doon bàyyi xel eh, bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñu doon bàyyi xel seen télévision Lam Fall TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen émission ëttu murit seen bokk taalibe Fallou Galas Sylla moo ci micro bi Alaaji Fallou Sylla moo ci wàllu machine bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp wasalaamu aleykum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 سفيك بقاء أبيهم لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له